صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته وأسنى خديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المشاهدون الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن بكي جلدي bokki taalibe yi bokki internautes yi noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaar bu baax di leen ndokkeel di ziyaare bu baax waa Foncab fondation Cheikh Ahmad Bamba Foncab TV Foncab TV di leen sant bu baax ci initiative bu am solo bi nga xam ni boole nañ ko ak liggéey bii muy liggéeyu sëñ tubaab yi tasaare liggéeyam bi akum njàngaleem ak liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal sëñ Touba ci biir réew mi ak ci biti réew rawatina fii ci États-Unis d'Amérique muy liggéey bu réy bu samp fii ci Detroit Michigan te jokkook àdduna bépp seen yitte yëpp di tasaare liggéeyu sëñ Touba ak liggéeyu njabootam gu tedd gi ñuy sant nag mboolem kilifa yi nga xam ni ñoo yor liggéey bi liggéeyub sëñ Touba bi ci réew mi di ci jital sëriñ Maam Mor Mbakke mi nga xam ni moom la ko waajur mu tedd yu bàyyeel te itteem jëpp ak jotam gépp mu def ko ci luy yewena liggéey bi ak luy mànkale taalibe yi ci àll bi di ci sonn guddee guddeeg bëccëg coono yoo xam ne yii jige ko mbaa di ko xool taxul nga xam ko yal ko ci yàlla doolee jàppale ak jëwriñ ñu koy jàppale fu ñu mën nekk ci réew mi ak bitim réew di am mbégte nag bu baax ci jataayoo gi ma jataayoo ak yéen tey ah ngeen sàkku itam ci man nu waxtaan ak yéen aslëf ci fadilatu cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu xaadim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ci sawar bu baax ànd ak nangu gu ñu nangu ni mën na am yéen ñii koy sant sax yéen nu ko gën a xam wante itam Cheikh Mouhamadul Mourtada di doomi sëñ Touba joo xam ne ji sax na fi lu yàgg te doonoon jëmm joo xam ne ji nëbbuwul woon jaxasoo woon ak ñëpp doon dem fépp liggéeyam itam fu waay taxaw gis ko ba tax na yaakaar naa ni kenn ku ci nekk mën nga cee wax dara lépp loo xam ne lii wax nañ ko fi ci jëmmam ju tedd jooju ci émission bii nga xam moo tudd Azikra muy fàttali te suñ borom moo wax ni fàttali dina jëriñ fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin kon ñoo ngi fàttaliku jëmm joo xam ne ji sax xam nañ di su ko fàttee ndax dundam gi dafa jaxasoog lépp lu baax parce que yooyu nekkatee ci lu baax rek sam xel dem ci moom ni waxtaan ci moom di ñaan itam lépp luñ ci wax lu ciy dëgg yàlla ko yàlla nangu te gërëm ko te faj ci sunuy aajo lu ciy njuum te yàlla nu ko yàlla jéggal luñ ci xamul tam yàlla xamal nu ko te nu jariñu ci jariñu ci du Mouhamadou da kenn la ci doomi Serigne Touba Xaadim Rasul di a doomam joo xam ni moo dim caatam ci ñi fi yàlla bàyyi ba ñu xam leen ndax wax nañ ni am nañu ko ñu mu magoon ci ñu góor waaye ñooñu dañoo teel a dem waaye bi mu fi bàyyi ko booba moom Cheikh Mouhamadul Mourtada mooy ki fi mujj ci moom soxna ci Tuuti la yaayam tudd bokk ci min bannaati kokki ci jigéeni kokki ñi bokk ci meen moo xam ne mii itam teel nañoo ànd ak sëñ Tuubaa muy meenum seey ndax meen moomu ci la cheikh Mouhamadou Moustapha ibnu Xaadimu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bokk ndax sëñ Tuubaa dafa xamoon réew mi xam askan yi xam xabiila yi askan wu ne mu xam la ñu le te xam la leen ko may xamoon na it ni lu baay baax baax yor jigéen ju baax rek moo koy tax a am doom ju baax loolu moom sëñ Tuubaa xamoon na ko baax ba tax na amoon na ay critères ci ñam bëggoon a dëkkoo ñam bëggoon a tànn doon waajuru seeni doom te ñooñu bari wuñu woon amuñu woon fépp loolu moo tax critère yooyu moom sëriñ bi fu mu mas a daje bu fa demee lépp lay jël ndax moo moom lépp fu mu mas fu loola mas a daje rek bu demee ci néeg boobee nga xam ni critère am yooyu mu soxla woon ngir la mu bëgg na mu bëgg doomam mel ni jigéen ji leen war a jur mel ma leen war a jur loola fu mu a daje li la koy xamal mooy bu fa demee day jël lépp loolu moo tax nga gis njabootam gu baax gi ni ñu bokke meenum sey moomu nag ci la Cheikh Moustapha mu baax mu bokk soo na amintuloo yaayam amoon fa Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Amin bi sëñ Tubaa ñi bisee ci géej gi ba jóge gànnaar ci la wax seex Moustapha it mu topp tool ko meenam moomee la fa des bam fa demee itam la fa dess lépp it ñu jox ko cheikh al khadim xamna ñaar fukki jigéen ñu dëkk ko yoo yo ni seigne touba yor na leen kon bok fonko na meen moomu lool mu dëkk ki ci muy ño xamni ñi ñii maam maxtaaram lu bés maam ci gatt rek sëriñ touba wax na ni ci jamono mo dëkkoon sangup jamono wax na ko ci rexlatu boobu mu dem ci géej gi mu jaaree kokki bi mu jógee jeewal fanaan fa ba mu xëyee jaari njokk dafa wax ni kaan fi xadimi zaman min ahli kokki kaan ahluha fi xadimi zaman borotun saalihin Cheikh Matar Ndoumbe moomu ci sangub jamonoom la bokkoon jur ñu baax di mbokkum ñépp di satub doomam yu bari itam yaayu cheikh Mouhamadul Moutada jooju ñëw ci loxol sëriñ Touba ñëwee fa ak ngone suñu nopp sëñ Touba jox ko sëñ daam jàng na fa alxuraan ba bind juróomi kaamil ci loxoom loolu boo doon wër ci yooyee jamono jigéen ju bind juróomi kaamili alxuraan naa ni amul ci réewi naar yi amul ci réewi ijaas yi waxuma ci réewi ajam yi ndey cheikh Moutada bind na alxuraan ci loxoom kon sëñ Moutada bu melee nii ci alxuraan ak ci bëgg xam-xam. ak fonk xam-xam loolu falaa wa mu ngi feeñ wax jamono taarix nag dafa baaxoo wuute kenn ku nekk ak fa nga yére loolu moo tax honnêteté intellectuelle mooy xam li nga seet li nga jàpp jàpp ko la ca itam nga bàyyi ko ka ko gëm-gëm loola rek rawatina ci loo xam ne lii wuute ga moom du am benn wàññin amul benn wàññeen waaye wax nañu mi ngi feeñ jamono atum jam sa Chine moom matu jumaa njaareem ñoo maase ama jam sa Chine mooy junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ca gàddaay ga ak booba loola xam naa du sori ay dix neuf vingt wala vingt un wala yooyu ci rabiu saani it la gane jamono loolu sëñ mat lamin moo ko wax ci irwaahu nadim ca juróomi fan ya rabiu saani mooy rakki gàmmoo gis naa ci xasiday gàmmo yi xasaay gu sëñ Tuubaa tënke rabihu saani waaye bayit boobu ba ca kaw raaga wax na ca lu mel ni loo xam ne lii mënees na ko taawil mu mu saxal loolu mu saxal ni yàlla may na ko ci rabihu saani tonu ju ndax ba mu wooree ba wori te ku ne xam na ni yàlla saa yu gërëme saa yoo jëfee jëf ju yàlla ju yàlla sant yàlla bu la fayee ba noppi dalay dalay neexal dolli ci moo tax sëñ tubaa xasida gum tudde rabihu saani sëñ tubaa tënk ca ca bayit wa ca kaw mu ne rabi rabihtu fiika yaa rabihul awali sir rachidan li zil baqaa'il awali sir rachidan ji moo lay xamal kon rabihul awal jàll na ko rabihtu fiika yaa rabial awali sir rachidan li zil baqaa'il awali kon ribx boobu muy tonawu naa woor naa ba wari waaye am naa ci tono ju wér yow rabiul saadi rabiul awal tonowu naa ci yow tono joojee man ne Cheikh Mahamadou Mourtada ci juróomi fan yi rabiul saani la gane jamono am na ñu wax ni ab rabiul awal la gane jamono bi mu feeñee moom mbonaat la mbonaat ab këllam lay judduwaale bi mu feeñee rek la ñu xam ni kii moom am na ku ko tippoo am na ku ko féetewoo ndax aw turam la feeñaale adduna muy jëmmi Muhammad yoo xam di dafa ànd ak séddit ci loxoom bii daana def léeg-léeg su ko ci yàlla xiiree tem neex ko daana ko wan ñu ko soob mu tolloog loxum di jooram bii cëpp wetu dina daana def léeg-léeg bu ko ci yàlla xiiree daana ko wane nga xam ne Muhammad jooju la indaale adduna nga xam ne turu woowu la indaale adduna turu Muhammad loolu lépp di misaalum xabool bu sëñ tubaa am ci yonent bi ak wusóor wu mu am ci moom ba léppam lu mu doon rek yàlla di ko ci wan kéemaan kulliyati mujizatun taaqarat wa xayru la day ko du xirat bi mu xeeñee ci soxna su tedd soosu ci cheikh ahmadul xadim bokk ci doomi sëñ tubaa yi nga xam ni euh, damay wax ni doomi sëñ tubaay bul jël kenn teg ca ka ca des bu ko def dañoo mel ni cëri yaram cër bu ci nekk fa féete boroom beneen cër mënu koo wuutu ba jëmm jëpp daj nit koo gis muy dem ay cër yu toggaloola ay loxo ay tànk bopp ay bët ay nopp aw làmmiñ seen boole di jëmm ja nga mën a xam ni jëmm ngee di dem waaye benn cër bu ca wecc moroomam amul ne la doomi sëñ Tuubaa mel ñoom ñëpp daje nag kenn ku ci nekk sëñ Tuubaa def ci yow ay tëjaliyaat yoo xam ne yi boo gisee gëmante gi ñu gëmante ak bëggante gi ñu bëggante ak fonkante gi ñu fonkante dara waru ko lu kenn ku ne li nga jeexital ci moom ak ni nga fa la sëñ Tuubaa tëbb nga doon nuru ko ko donn ko ko ña ca des ñëpp loolu lañ jàpp ci yow loolu lañ la fonke loolu lañ la wegee loolu lañ la màggale loolu ba ñoom ñëpp daj min awalihim ila axirihim man ngaa xam ku ci mag waaye kenn xamul ku ci gën ndax nee ñoom ñii di sama njaboot man képp la yàlla defal ci sama njaboot loo xam ne lii man rek maa ko ci am muy kenn ku ci ne mel ni ma bëgg nga mel ko kenn ku ci nekk itam yaa gën ko dul yow rek sama doom ju ne moo gën ko dul moom te loolu moo ko ñaanoon borom allahuma isal waladi muhammadul mus muhammadul mustafa wa gayruhu min awlaadi aimata kulli man asarahum fi l ilmi wa diini wa tuqaa yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma Cheikh Moustapha sama taaw bi ba ci Cheikh Mourtala sama caat mi sama doom ju ne nang ma defal mu gën ku dul moom ku dul sama doom rek ci topp yàlla ak xam yàlla ak ragal yàlla nañ gën a xam yàlla ñëpp nañ gën a ragal yàlla ñëpp nañ dàq topp yàlla ñëpp loolu doom doomi Sëñ Tuubaa ko dàq ñëpp jikko yi it ñoo ko gën la ñëpp te loolu góor ñi ak jigéen ñi ñoo ci bokk yam ndax dafa wax ni waleej baarik fil bannina wal bannaat bi suratin awaluha wal aadiyaat sëñ bi nee na yàlla may na ma ci barkeb sootul aadiyaat sama góor baax nañ sama jigéen baax nañ jenn doomi sëñ tubaa ju jigéen ju mas a toog ni su ma doon góor amul ndax danga def la jigéen di def ba noppi di def lu góor gu baax di def góor gu baax ak jigéen ju baax ñoo yam képp ci topp yàlla jaamu yàlla xam yàlla loolu moom sun borom moo leen ci moo moo wax loolu wax ni fa ma wu la ma la wuutalee góor ak jigéen def lu baax ma fay la bokku ci fa man yaamal min alsaalihaati min zakarin aw unsa wa huwa muminun fa la nuxiyannahum xayaatan tayibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu ya'maluna doomi sëñ Tuubaa yi dañ daan am seen këri bopp yu jigéen yi di yor mbooloo ñu ami turandoo di leen tarbiya di leen yar seen bokk yu baax yii di seen i càmmiñ di jur aw jigéen di leen ko jox di leen ko tudde di ca def seen jikkoy bopp di ca def alxuraan di ca def diine di ca def xam-xam ku doomi sëñ Tuubaa jigéen yar ak ku doomi sëñ Tuubaa góor yar bu jëf jotee buñ jëfee nga xam ne ñoo bokk leen yar noonee rek la ñu meloon doom yu góor yi it rek la ñu mel ñoom ñëpp ñu bokk ay critères yu ñu nuroo yu bari nuroo jikko yu bari am nag ay wuute kenn ku ne sa xaas ak la nga xam ni fa la la tubaa investir nga nuur fa sëñ tubaa doon ko fa doon ko fa cheikh mu moutara feeñ aw juróomi fan ci rabi hustaan yi mu ne yax rek ki gàmm comme ni ma ko waxe dégg nga sëñ bi ni rabi te fii ka yaa rabi sa awali sirra feeg moom lu yàgg sëñ tubaa fekki rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam doon liggéeyal bàyyi ko fi mu nekk ci ron kilifteefug Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne ca yooy jamono moom ak ci njabootuk sëñ tubaa gi sëñ tubaa méngu ko léppam dénk ko njaboot gépp booba njabootuk sëñ tubaa gu góor gi ñi ci mënal seen bopp dara ci zahir mi ngi yem ci Cheikh Abdoulahi mi nga xam ni ama hamsa shin wala wamsa sin wala ama ama kasa ama hëg shin ولا أما وكسشين أتوم جنة أنيت تيمير أنيار فك أجرم بين ورطلق 1907 1908 لعنة أدنى تجلف في بفسين تبعت بايكو أمن أنيار فك واي كروت شيخ عبد الله أكي مقام من الشيخ محمد المصطفى الشيخ محمد اللمين الشيخ محمد الفادل الشيخ محمد البشير كل نيونيو اك شيخ محمد شيخ عبد الله مومو nga xamni boba lay door am ñaar fukkel ñete dess ñepp nga xamni ndiarim lañu feñé tambalé ci seigne ibrahima ba ci cheikh Mouhamadul Mourtada yi ñi ci des ñëpp ñu ñuy war a taxaw lañu moo tax wasiye bi fi sëñ Tuubaa bàyyi wax ko cheikh Moustapha mooy Moustapha say rakk ngoog muy jigéen ñi nga xam ne duñ jóg mukk ci kilifteef jigéen moom du jóg ci loxo bàyyi ma koy war a yor ba ba mu koy jox borom kër bu ko war a yor ba ba ñu noppee nekk ci loxol borom kër mu nekk ci loxo doomam wala mu nekk ci loxo kamak mag ci kër baayam rek waaye jigéen moom du jóg ci loxo mosuñoo ñàkk kilifa am na ci doomi sëñ Tuubaa yu jigéen yi ñoo xam dem nañ ba xam ne buñ doon ba yegg ci buñ doon góor war a moom Tuubaa waaye téew rek ñoo sa nekk ci ay loxo noonu la yàlla bindee jigéen loolu jigéen ñëpp war nañ cee jàng ni jigéen ju baax moom lu mu baax baax baax baax rek di am kilifa nga xam nañ doomi sëñ bari yoo xam ne biñ fi nekk ñoo magoon Tuubaa waaye téew rek ku fi nekk di góor yaa leen di yilif yaa leen di taxaw yaa yor seen mbir yëpp loolu itam société bi war nañ koo xam bu baax a baax a baax waaye booba jigéen ñi nga xam ni ca diw jigéen ak ñi di góor nga xam ci Cheikh Ibrahima la tàmbalee ba ci sëñ Muxtada mi booba ku ci ku ñuy war a taxawu nga ku ñuy war a jàppale nga rawatina sëñ Muxtada mi foofu nag ci la génération actuelle bii war a jëlee bu baax a baax a baax exemple exemplarité ci Cheikh Muxtada ndax wane na ni bu fekkoonte ni du ki mu doon kon nii mu mel du ni mel ndax bi mu fi bàyyi ko sëñ mu Moussa Mbacké ak ku mel cheikh mouhamadul fadal ak ku mel ni cheikh mouhamadul lamine booba seen taaw yi mag nañ ko fopp mag nañ cheikh murtada lol lol lol lol lol seen taaw yi njëkk am ci zahir feeñ nañ lu yàgg yàgg yàgg cheikh murtada door a feeñ daanaka mage nañ ko lu ëpp ay ñaar fukki at ak nangam waaye su mel ni soxna mariamu ku mel ni soxna benn fàllu ku mel ni cheikh ahmadou mbakke ku mel ni cheikh sëñ mbakke madina ku mel ni Cheikh Mouhamadul Hafiz doomi sëñ Baara ñooñu xam ne mag nañ sëñ eh, ñu jigéen ñeemate ko moom xaw nañ ko man waajur wu jigéen nañ ko lool mu caatum sëñ Touba feeñe nii mu feeñe waaye bu mu jógee rek la xam ni bu toppee cofeel gii ko bokkam ñu topp ak yërmande ji ñu am ci nga ndax ñoom ñëpp jamian kaanu alayhim alayhi xayuran wa rahiman ko bëggoon lool amu ci jenn doomi sëñ Tuubaa ju Cheikh Mourtada gënalul sa bopp li ci firnde mooy ak fañ ko tegoon ngir mujj gi mu leen mujj ci sëñ Tuubaa ak ñeewante giñ ko ñeewante ak gëm giñ ko bëgg ak li jagoo jagle gi mu am la cay firnde ju gàtt rek loo xam ne lii ñëpp euh, mën nañ koo fàttaliku di ko mën nañ koo xam mooy kenn mus sa gis ci àdduna jenn doomi sëñ Tuubaa ju ma sa yëkkati liggéey jox ko sëñ Mourtada liggéey loo ko ci lenn musuñu koo bayloo musuñu koo déqiloo musuñu koo góobloob tool musuñu koo euh, santum néeg kenn musu ko cee liggéeyloo dara du bam ko mënagul du bam ko manee du bi mu fi nekkee ñoom kenn musta yëkkati benn xeetu liggéey du liggéey bu alal di def mbaa bu doole def nga yëkkati liggéey ba ni yoon yu baaxoo mooy ku mag yilif ku mag liggéeyloo ku mag gorloo ku mag kenn musu ko cee sant dara loolee te ñoom ñëppit kenn ku ci nekk Cheikh Moutalla gënal la sa bopp loole xale génération tey bii war nañoo seet ne loolu tey nit war a am jom waaye nit warta nekk ci waaye am na ay mag yu góor tukki nañu mën nañu dara tax nga ni yàcc bees say loxo loo wax nga ni kër grand bi alma daali grand bi alma bubu grand bi loolu war nañoo jàng ci sëñ Murtada am jom parce que yéene a jóg am say fi bopp wuti mu xamee ni kenn du ko sànje te ku mu ci lu mu xool kenn ku nekk bu Seex mu tulaa ñëwee fi yow yaa ngi bàyyi sa xel ci moom lu mu xool ci néeg rek buy dem day mel ni lu la xaraam la bu xoolee mbubb moo wekk bu dem yóbbaale ko bu xoolee fas bu bu demee yóbbaale ko ñoom ñëpp kenn ko ne li nga bëgg rek mooy xam ak bëggam kon bu dul woon kii mu doon bu doon fullay boppam ak pësteefu boppam ak jomi boppam kon du doon kii mu doon tey muy ah, muy shaxsiyun shaxsiyun alamiyun muy une personne universelle nga xam ni dem na ci jomi boppam ba ñëpp xamal ko waaye lam jëkk jëkk a def mooy xam la sëñ Tuubaa bëggoon muy xam-xam xam ni nit ki moom ku xam ak ku xamul du yam mukk mu góorgóor nekk ci ron Cheikh Mouhamadou Moustapha magam ju baax ja jàng ba xam la war a xam lépp xam bi yàlla bi na mu wàcce woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mokkal ko am zahril xëy bi bari xam-xam lool xeeti xam-xam yëpp mustaxilaat yeeg waajibaat yëpp mu xam ko jàng diineem ba xam ko laxas dem gànnaar ci joomi boppam ba dolli ko xam-xam xeeti xam-xam yëpp mu xam ko yàlla sun borom defoon ci moom itam mu doonoon jëmm joo xam ni bëgg gi bëgg gi bëgg gi yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonk sunnaam bañ biddaa bañ ab yéefër bañ ak doyadi bëgg lu baax nangoo sonn ci lu baax yàlla may ko itam taqwiya ci sàkk lu baax muy kàttanug def lu baax kàttanug jaamu yàlla yàlla may ko muy jëmm joo xam ne jii ba mu jógee rek la am la mu bëgg la ba mu jógee rek la xam la mu bëgg viser ko wuti ko bi nga xamee ni euh, ñu ngi nettali ni kéemaan gi yàlla jëkk a def ci moom mooy ñaari bokk yu baax yooyu di sëñ Mor Xari si ak sëñ Malick Basin si dañoo bokk ndey ak baay sëñ Maxtaar Penda si di seen baay sëñ Maxtaar Penda mag la ci kalaasu sëñ Busoobe la ak sëñ Mbàkke Mor Anta ñooñu xam naa mën na leen moo leen mag sax moo mag ñooñu sëñ Maxtaar Penda Si bokkoon na ci kilifa yi nga xam ni tafsir Maba Jaxu tàllaloon na leen loxo jamono yi nga xamante ni bii mu ngi xeex ak Ahmad Jaxeer mat Jaxeer ca Pasixur ak tuubal payen yi nekkoon ci Saalum te yéefar yi di def bu leen sëriñ bu leen ab mujaahid fetale wala mu rey leen dañuy seet beneen sëriñu fayu ci mu fang nag sëriñ si woon ci réew mi rawatina ñu dëkk Jolof indi leen Saalum ngir ñu di ko jàppale ci jihaad yi sëñ Maxtaar Pend si moomu ca la bokkoon sëriñ bu soobee càmmiñal soxna Jaaratullaahi Mariama ci la bokkoon sëñ Mor Sëli booba teewaloon na fa bàyyi Maam Balla Aysa ndax booba mooy sëñ Mbàkke Bawol te booba sëñ Mor sëñ sëñ Maam Balla Aysa mage na yebal fa sëñ Mor Anta Sëli mu demoon fa ànd ak sëñ soxna Jaaratullaahi Mariama ba fa la des maam Abdoulaye Niass booba baayam amen ngàjj fala fala foofu jihaad ja la nekkoon ak ku mel ni Paate Ndab ak ku mel ni sëñ Maska ak sëñ Samba Tukulóor ka ak ñu bare bare bare bari bari nañu diggante kilifa yi jolof yooyu ak bawol yooyu ñoo xam ne ci loxo yi Maba la nekkoon maam Maxtaar Penda Si itam ci jihaad joojee la nekkoon ñaari doomam yii nga xam ne ñoom itam muy sëñ Mor Xaris ak sëñ Malick Basin fekki sëñ tubaa gànnaar jébbalu ci moom sëñ Touba téye leen yar leen defar bi mu leen gërëmee yabal leen saalum kenn ku nekk ci ñoom sañc ci ka juróomi dëkk sañ ma sëñ moor xari si ma ca mag nag sëñ tubaa mas na koo wax ni ko day bis bu la yàlla jébbal sa borom maa lay taxaw maa lay denc maa lay taxaw maa lay denc xam nga sëñ tubaa ay waxam moom mag ñi ñu xamul lu mu wax it xam nañu nii mu ko waxee rek ne ko yàlla dewal lu mu mas a wax rek kam ko wax fàttewoo ko kenn ku nekk ci ñi ko yàlla booleel bis ba nga masee am sëñ tubaa xaatabanteeg yow maanaam waxanteeg yow wax joo xam ne ji musaafahatan yow la ko wax bis boobee mooy bis bi gën a texej si dund doo ca fàtte dara dam la ko waxee te da nga xam ni da nga ci teg sa bët ni nga gisa sa ni nga gisa ni ngay gisa sa jëmmi bopp ji yàlla atte ñu teg ci ab diir sëñ bi làqu sëñ Mor Xari si moom ma nga saalum ca bambuk bambuk mooy ci penkub Koungheul jëm Jolof foofee fala sañc sanc Cheikh Mouhamadou Mourtada am jamono boo xam ne bii rek yàlla da koo xiir ci bëgg a dem di dem kenn xabul fu mu jëm te loolu it sëñ tubaa mas na koo def sëñ tubaa am na jamono yoo xam ni jamono yi soxna astawaala di nelaw booba sëñ tubaa xelam mépp li ci nekkoon mooy gàddaay rek dem dem yàlla ate muy dem sëñ bu soobee mii ni jaayam bokk ak yaayam ndey ak bàyyi ba mu ko jaale jee sëñ soxna astawaalo yaayam daf ko ni ngaa dem ahmadou na nga dem siyaare ji sa nijaay maxtaar pend si na nga dem siyaare ji ko sëriñ Tuubaa ko ma sa lu baax rek te ci sawar lool mu dem siyaare ji sëñ maxtaar pend si bàyyi sëñ bii ma lay wax ba mu demee sëñ maxtaar ni ko ahmadou gis naa la yaa ngi mel ni kuy bëgg dem de yaa ngi mel ni kuy dem ku de sa xel mi def dem waaye boo demee da nga sonal say bokk lool ndax des na tuuti yàlla dana la dikke mbir moo xam ne mii kenn du ko mën a muñ penkook sowu li am njariñ àdduna ak alaxira ngépp lépp mu ngi sa loxo yi yàlla dina la te boo demee génn réew mi dem fu kenn xamul itam danga nga sonal sa bokk yi ndax ku bëgg lu baax foo nekk mu fekk la fa te boobaa ñëpp duñ jot ci dëkk Ahmadou toogal ci réew mi ndax say bokk mën laa jëriñoo ndax mbay ci say woom te yaay njëriñal adduna ak alaxira gis naa ni danga tukki waaye tukki boobee du tukki boo yóbbu sa bopp des lay yóbbu waaye tukki bii nga nar bokkut ak tukki boobu dellul sëñ Maxtaar moo wax loolu sëñ Touba. doomam yooyu nga xam ne mooy sëñ Mor Xari si ak sëñ Malick Bassine si jébbalu woon ci sëñ Touba yi bi sëñ Murtala di dem dafa dem bambu googu fekk fa sëñ Mor Xari si mii mag sëñ Mor Xari si wax sëñ Murtala la ko bàyyi la bàyyi moo xoon sëñ Touba mu ni ko ah foo jëm mu ni ko damay dem mu ni ko foo jëm ci penk mu ni ko ci penku bi mu ni ko yaa ngi ci penku bi yaa ngi ci penku bi ndaxanteeg moom ba téye ko fa sancal ko fa kër téye ko fa diir bu gàtt rek sëñ Mor Xari nelaw sëñ Murtala ko taxaw moo ko jiit la ko sëñ Touba waxoon ko foo mën a nekk maa lay taxaw loolu moo tax bambu googu ku fa bari mbooloo la ku fa bari ay taalibe la ku fa bari ay kile am na njabootam gu bari goo xam ne ci sax sëñ Mor Xarit si moom ak sëñ Malick Bassi ñooy seeni maam Cheikh Mouhamadou Mourtada def itam bépp ci sàkku xam-xam ak bëgg baax jubóog bokkam yëpp min awalihim ila axirihim góor ñi ak jigéen ñi dox bii muy doxi teel na koo tàmbali ba dox jafee dafa mel ni moom lañ ko liggéeyloo lépp mu ngi ciy tànkam boo gisee doomi sëñ Tuubaa yi toppandoo duñ àbb jikko kenn ku ci nekk ni nga mel dañoo mel ni ay faslu ay ay saison bu nawet bi ni mu war a mel noor bi ni mu war a mel loll bi ak na mu war a mel cooroon bi ak ni mu war a mel faslu bu ne na nga mel moo baax ci kawnu bi moo baax ci nit ñi moo tax duñ toppandoo kenn du ci àbb sa jikkoy moroom fi mu ne Serigne Chouaïbou du toppandoo Cheikh Mourtala ci doxam bi ndax moom ci toogaayam bi lay defar ñi mu defar ñëpp Cheikh Mourtala itam kenn mënu ko li mu li mu defar ci dox bu toogoon du ko jar nga xam ni adduna noonu la noonu la noonu la noonu la sëñ Tuubaa bindoo waaye mu am xam-xam bu yaatoo yaatu yàlla def itam mu am mu am jikko ju jikko ju rëy mu amu xajoo loolu sëñ Tuubaa dafa yonent bi naan ko yaa waasial ata nib nil waasiil ata nib nil waasiil ata nib nil waasiil ata ni mu yonent bi dafa yaatu ab dënn dafa mën a xajoo dafa deful ko xat xol Cheikh Mourtala yàlla dafa def mu jëmm joo xam ne ji du jeex kenn mënu koo jot moo tax Euh, doomi sëñ Tuubaa ko xamoon rek ñoo ñoo ko doon wattandiku ndax am na bis boo xam ne bii am na benn taaliba sëñ Murtada ku ko taxoo woon lool ku ñëw ci sëñ Fallu nuyu si ko borom mu ne ko ana sëñ Murtada mu ne ko ma nga fa mu ne ko ah na ngeen ko wattu bu baax de na ngeen ko wattu bu baax de na ngeen ko wattu rakk rek de da di rakk rek di rakk rek kenn yem ma fii te yéen xam ngeen ci dara réew yi mu daan ñëw gis ngeen xale yi mu daan àndal xale yoo xam ni ils étaient insupportables kenn mu leen rek moom ñii ñu ci bare bare bare nga xam ne daanaka buñ dee fukk juróom-ñaar ñëpp adduna ba gub tukkee bëgg dem ak topp sëñ beeg waaye daanaka xam ak xam sax defuñu ko te boo fekk na doomi sëñ tubaay ñoom fañ koy xool kenn du ko ci sant dara te kenn ku ci nekk yaa teg foo xam ne fii tegoo fa sax sa bopp ci di ko doomi sëñ tubaay fonke woon bokk na ci la koy xamal mooy ñàkk liggéeyloo gi ko kenn mus sa liggéeyloo waaye dolli ci itam nag kenn ci doomi sëñ Tuubaa daw ko gane ji ndax ñaari nawle sax ku ca gane ji moroom rek di sangub ka ca des saa yoo amee sa gan tey nit ku baax gan nga doon sab sangu ba ngay dem ndax da nga wàcc sa lal jox ko ko bu dee benn doon nga am da da da nga da nga sa cin te bu dee gan goo war a ber la ca gën lépp nga koy jox te buy dem nga gunge ko loo am jox ko nga xam ne gan noonu la toll ci lislaam toll ba tax na kenn mësu koo bëgg a gane ngir doo bëgg waxtu woowee nga ko gane diir boobee mu doon moom nga doon sangam ñoom ñëpp dañuy bëgg muy seen sang moo tax moom moo leen daan fekk waaye ne musuma fàttaliku man foo xam ne fii kenn ci ñu mbokkal sëñ Tuubaa naa jóg di ko gane sëñ Musulaa mooy dem fi ñoom li ma gis itam seetlu ko mooy musuma gis kenn ci ñoom koo xam ni li nga xam ne mooy aaday yoon wi nga nangu seex Murtala defal la ko muy di la toogal fi suuf toog fi suuf nga toog ci kaw wa ilaa ngay nangu sax muy foq ay kaalaam ak déedéet kenn ku ci nekk rek bu yegsee na mu toll na ko yàlla def mu def na boppam rek noonu ngay def ci moom tedd te comme ci mas di teqlikool itam boo tàllee mooy ñaan loolu lu yéeme la ci nu ko yàlla def ba mu jógee rek la mel noonu ñoom ñëpp ñëpp ñëpp te boobu ñu góor ñi mu muy Cheikh Modou Moussa ak Cheikh ñoom ñëpp mën nañ koo jur waaye foofu lañ ko tegoon waaye woowu lañ ko joxoon kenn ku nekk itam da nga koy bàyyeeg boppam ndax ba mu jógee rek. la xamni genn kilifa la am muy qadimul mustafa sallallahu alayhi wasallam magam yep na kenn ko joxon la ciir waye cër waaye ku amoon vision la ko xamone lam bëgg la ko xamone lañ ko liggéeyloo won mu tegon ci bakkanam kenn nit musta na nangoo dox digganteem ak li don li won ci kanam ndax xamna ni leppam ak defar la dox bi bi mu koy tambali ci biir réew ma booba waruwaay yu bax ba amul waye ku massa a ñeme coono la ku massa a naaj la xamul waxtu juk xamul waxtu gont fu ko yàlla ma sa xiir dem na fa ànd ak jànkoonteeg jafe-jafe yu méttee méttee méttee métti Afrique gii ba mu fiy dugg booba Afrique melagul nii booba tëjagul nga xam ni booba ci saxaar lay dugg ak ay oto yu metti yoon yu impraticable waaye ku mas a am taqwiya la ku ñeme énergie ku ñeme coono la ku yàlla mayoon kàttanu mën a surmonter ay épreuve la ñeme xiif ñeme mar ñeme guddi ñeme lëndëm ñeme coono bi muy transiter jaar Afrique gii di dem ay Bamako di dem Côte d'Ivoire booba daanaka kër sëñ Touba yi amul amul fenn nga xam ni euh, sunu bokki ajoor yi nga xam ne ñoo jë euh, classe artisan ouvrière artisan yi nga xam ne ñoo jëkk génn muy bijoutier yi ak euh, rab yi ak tëgg tëgg yi ak wuude yi ak rab yi ñoo jëkk tàmbali immigré dem ci sous région bi booba ñooñu la fa daan fekk di leen nose fu mu mës a taxaw itam nag dafa mel ni engrais engrais lislaam a ànd ak jéego bi noojam jooju fu mu ko dox kéefar dan topp fa lislaam sax fa yàlla lewetal réew moomu daana dem ci ay réew fekk fa ay jafe-jafe yu bare bare bare France gi jamono yi mu fii ñëw booba ay kër Sëñ a waxaguñ ko booba euh, daanaka euh, taalibe yi la ci ëpp booba kër Alaaji Yàdd Jóob ab taalibeem lañ daan daal moo fay kër sañ tubaa nekkoon ca euh, porte Clégnancourt nga xam ne booba fa la daan daal booba amuñu Sénégal immigré yi amuñu fuñ dëkk français yi bañ leen lool ñii di fanaan ci seen oto yi ñii di togg ci seen maari oto yi dëkk métti jamonoy métti waaye fu mu mas dem rek yàlla suñ borom euh, euh, ubbi foofa dafa mel ni ni ni ni saxaaba yi meloon rek nga xam ne di conquérir fu mu mas a dem rek da ngay xam ni kii am na lu ko tax a jóg bu fa jógee rek jafe-jafe fa ko ñëpp daal di fay toxoo mu taalibe yi tàmbali faa am ak yaatu tàmbali faa xaj tàmbali faa am fu ñu dëkk waaye fu mu masa demit sant na leen ñu boole seen bopp sant na leen ñu góorgóorlu ci li yàlla digle sant na leen itam ñu sàkkal fa lislaam barab bu ñuy dajee ndax loolu moo indi kër sëñ Tuubaa yi bu jëkkoon sax kër yi daawul am benn suivi waaye fu mu fi mas dem boo fa fekkee jafe-jafe moo koy saafara ci am bu fa fekkee ñu am coupure électricité moo koy fay def na ko ba tàyyi dem na ci dëkk ba tàyyi jënd fa am tabaski ci xaalisam rendi ko ci kër sëñ Touba kër sëñ Touba ñun noo koy waaye moom kër lislaam rek la ko daan wooye fu fi mas a taxaw rek foofa daal dinañ am fa euh, ubbi ko am fa yaatu am fa muy digal taalibe itam ñuy booloo di daje di waxtaane seen diine di ànd di jaamu yàlla di te di wéetal konte ndax buñ xisee mat communauté rek réew ma ñu immigré tàmbali leen a bàyyi xel mu xiir leen ci ak jub ak sàmmonteeg sart réew ma ak ak réew ma ba buñ tooñ bu ko defee ñooñu tàmbali leen a bàyyi xel ñu tàmbali faa am ak jàppandal loolu liggéey na lu bari liggéey bu rëy a bu mu defal yàlla ak sëñ Touba ci adduna ndaxte bu sooboon sëñ Touba kon du génn kon man mii di wax ak yéen ak yéen ñii may déglu kenn du ci ŋàbb walisam diri ko dem fenn sëñ tubaa lim liggéeyal yàlla liggéeyal ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam to am na ca yàlla loo xam ne lii su ko sooboon kenn ku xam aw turam ak ku santam yaakaar ko doo génn sa kër di wuti dara lépp fekk la fa barkeem ëpp na loolu. jërë ngeen jëf ci vidéo bi ngeen doon seetaan képp ku ci bëgg yeneen i vidéo da subscribe fii bu ko defee ñu ma leen a yónnee yeneen vidéo yi nekk ci suñu YouTube channel. FONCAB di fondation bi nga xam ne moo boole daayira yi nekk fii ci Amérique ak li ko wër ngir liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasuul jërë ngeen jëf.